mboolem tur yi tur yi mooy musammayaat ay asmaawul kaayinaat musammayaat buñ ko waxee mooy turu mbindeef yi garab ak yeneen yu mel noonu loolu mooy musammayaati yàlla xamal aadama alayhi salaam mboolem tur yooyu de kulluha mboolem seen xataa ndab yeeg dégg nga xataa xam-xam yeeg dégg nga xataa mboolem loo xamante ne yàlla bind na ko rek Eh, moo xam fas yeneen daaba yi mbaamaak yooyu yëpp yàlla xamal na ko Adama alayhi salaam dégg nga eh, Adama alayhi salaam eh, yàlla ne ko nag <coughs> lu ko commencé ci jamono jii ba axiru dahar maanaa lépp yàlla xamal na ko ko de moom Adama alayhi salaam lu ko commencé bi ko yàlla wàccee fi mu dajeg malaaka yi dégg nga ba keroog jamono di jeex lépp la aadama xamoon de dégg waaye malaaka yi ñoom la euh, lam yaalamu an ñoom xamuñ dara summa aradahum alal malaayikata fa yàlla daa gaaral nag malaaka yi dégg nga ne aadama laajal malaakayi ndax xam nañ lii fa qaala am bi uuni aadama ne leen wax leen ma dégg nga bi asmaay haulaay ci turu li fi nekk nii wax leen ma ko ah in kuntum na su fekkee ne woy dëggu ngeen de ñu wax ko malaaka yi ne léegi comme Adama xam na tur yi léegi nag yéen malaaka yi yéen itam wax leen tur yi su fekkee ne xam ngeen li fi nekk su fekkee ne dëggu ngeen ci li ngeen ne lu tax parce que yàlla dafa bind Adama alayhi salaam ñu yaakaar na ñoom. bind gi yàlla bind aadama alayhi salaam ñoom ñoo gën aadama te ñoom ñoo ko gën a xam moo tax mu ne fi anni laa axluqu alamu minkum wa aw aw annakum axaqu bil xilaafati min aadam mu ne su fekkente ne yéen gëm ngeen ne binduma ku leen gën a xam yéen malaaka yi mooy in kuntum saadiqina bi leen waxal de waaye saadiqina itam waxtu wu ko yàlla waxee rek yàlla mu ngi lay delloo ci maqaama siddiqiya maqaama siddiqiyatu bi nga xam ne ñu ngi koy amee ci daaratul imaan yàlla daf leen waxoon in kuntum saadiqina su fekkee ne eh, aji dëggu ngeen lan moo tax ndax malaaka yi dañ jàppoon ne yàlla bindut ku leen gën a xam wala yàlla bindut koo xam ne moom moo leen gën a yeyoo xilaafa gi de ci aadama maanaam ñoom ñoo gën a yeyoo xilaafa gi ni aadama waaye sànq li mu bëggoon a wax mooy eh, yàlla daf leen taggee wala daf leen eh, poser question su fekkee ne bokk ngeen ci saadiqiina yi saadiqiina yi dégg nga mooy maqaama siddiqeetu de maqaama siddiqeetu nag suñ ko waxee yaa ngi koy amee ci daayratul imaan daayratul imaan yaa ngi dégg mooy dëgg-dëgg daayaratu wilaayatu de waaw daayara wilaaya nag dégg mooy Eh, eh, eh, alamu jabarut foofu ngay fekk pays malaaka yi moo tax yàlla daa daa di jàngale ne malaaka yi in kuntum saadiqina de waaw su fekkee ne aji dëggu ngeen xaalu ñu ne subhanaka tudd nañ sell ma ah, tudd nañ sa sell gi de yow yàlla ah, laa ilma lana déet xam-xam ñeel ñu illaa ma allamtana lu dut loo xamante ne xamal nga ñu ko de innaka naka yow anta la alimul hakim yow yaay aji xam te yow yaay de ah, xaala mu ne yàlla ne leen ya aadam walla yàlla wax yaa aadama yow aadama an bi hum leen ñoom malaaka yi de bi asmaa ihim ci seen tur yi de tur yan mooy tur musamma yaati de mooy tur mbindeef yi dégg ah, fa sama aadama kulla shay'in bismihi mboolem li fi nekk rek aadama daal di tudd de yaa ngi dégg wa dakara hikmatuhu mu wax itam yaa ngi dégg ci ban hikma dégg nga ci la ci la nekk de maanaam la mooy atteem dégg nga kon gis nga Adama def na eh, eh, nasab ci mboolem tëjëliyaat yi nga xamante ne feeñ na fi ndax benn bu nekk rek Adama jox na ko turam benn bu nekk itam Adama wàcc na ko wàccuwaayam dégg nga loolu mooy nisba bi nga xamante ne dox na diggante Adama ak mbindeefi de. aarifuna billaay ñoo gën a dégg loolu de dégg nga loolu xikma ah, la moo tax mu ne wa zakara xikmatuhu dégg nga yàlla wax wala Adama wax lan mooy xikmaam li tax yàlla bindi bindi fii dégg nga falamma anbaahum bi mu leen xamalee eh, bi asmaa im ci seen turi xaala eh, yàlla ne <coughs> alam aqul lakum xanaa waxuma le woon yéen malaaka yi inni man aalamu ma man aji xam laa xayba samawaati dégg nga li nëbbu ci asamaani wala ad suuf de wa aalamu xam naa maa tubduna la nga xam ne moom ngeen di nëbb moom ngeen di feeñal de <coughs> min eh, lum lum namm ci li ngeen di feeñal mooy ci seen wax yi de yaa ngi dégg ndax malaaka yi dañoo waxoon ne atajaalu fiiha man yufsidu fiiha wa yufsiku dimaa waaw ndax yàlla da ngay def ci ko suuf koo xam ne yàqkat la te turkatu deret la yàlla ne malaaka yi lañ wax man maa leen ko gën a xam liñ ci jublu mooy dégg nga dañu yaakaar ne ñoom eh, man yàlla du ma bind ku leen gën a tedd dégg te du ma du ma bind itam ku leen gën a xam de dégg nga moo tax mu ne wa maa kuntum taktumuuna ak li nga xamante ne daan ngeen ko nëbb de <coughs> eh, qissa Adama alayhi salaam num jëflante woon ak malaaka yi malaaka yi bi nga xamee ne yàlla bind na Adama alayhi salaam dégg ak yëf yi fi nekk ak malaaka yi malaaka yi xamuñ woon li fi yàlla def de yaa ngi dégg yàlla xaajawoo ah, yàlla bind aadama dégg ci ñoom maanaam mu def leen mu ah, ah, bind leen mu bind aadama alayhi salaam dégg nga ci aadama moo yeyoo xilaafa bi moom aadama alayhi salaam yàlla def loolu lu tax mu ne li annahu yaalamu ilman laa yaalamuhu almalayka ndax aadama lu tax mu yeyoo kilaafa gi dafa xam-xam boo xam-xam boo xam ne malaaka yi xamuñ ko de mu ne fa li haada loolu moo tax qaalalu ulama boroom xam-xam yi ñu ne inal al imamata laa yustahaquha illa al aalimu faqat naka njiit kenn yeyowut ko kenn mënta nekk njiit lu dul ne da nekk boroom xam-xam de kenn mënta nekk imaam lu dul da ngaa nekk borom xam-xam moom la bàyyi di wax ci benn téeréem al ilmu amri huwa imaamul amali xam-xam mooy sama dund te mooy njiitu bépp jëf de képp koo xam ne yaa ngi def dara te amoo ci benn xam-xam jarul nga koy def mu ne la lam yaalamuha fahtajja yàlla daal di def xujja mu jubluwaay alayhim ci ñoom bi anna aadama ndax aadama yastaxiqu moo xeeyoo alxilaafa xilaafa bi dégg lu tax mu yeyoo xilaafa gi parce que moom moo leen moo xam luñ xamut <laughs> borom xam-xam yi ñu ne kon kenn mënta nekk njiit lu dul ne da am xam-xam ci xam-xam ci nga mën a nekkee njiit mu ne naka yàlla subhaanahu wa taala def na njiit ci malaakay yi maanaa jiital na aadama mu nekk kalifa am dégg nga fii xilaafati aadama bil ilmi ci xam-xam mu ne wa fadlul ilmi loolu nag ngeen lu xam la de dégg nga ah, alam alima aadama musammayaat bi nga xamante ne xam na moom aadama musammayaat yi mooy tur yi dégg nga turu mbindeef yi wal malaayika ak malaaka yi lam yaalamuha te xamu ko woon xamu ko woon malaaka yi de dégg nga jaalahu jaalahu laahu yàlla def ko xalifatan muy xalifa fil ardi ci suuf wa amaral malaayika yàlla daal di digal malaaka yi nag kama yaatil aan comme ni nga xamee dina ñëw ci kanam ci ci aaya bi yàlla digal leen ne leen eh, nañ leen sujootal aadama de dégg nga waaye sujoot boobu sujootu nuyoo la de sujootu taxiya sujootu nuyoo la hada dalilun ala sharafil ilmi loolu li muy tagtele mooy eh, te daayu xam de aadama alayhi salaam dafa am xam-xam loolu moo tax malaaka yi sujootal ko de kon gis nga nit ku am xam-xam li yey ci moom moo ñu sujootal ko moo ñu màggal ko waxtu woo xamante ne daraa ngi sotti rek yaa ngi dégg loolu dañoo war a nekk ci ronam mu sotti suñu kaw nit nga xamee ne asamaan a ngi sotti suñu kaw ñu nekk ci suuf ñu nekk ci ronam nit nga xamee ne bu robinet di xelli itam dangay gis nga jël ndab nga teg ko ci suufam mus jootal ko ak yeneen yu mel noonu noonu itam la xam-xam suy dooteeku jóge ko ci borom xam-xam nga war a suufel sa bopp su jootal ko ngir mën a jot loolu de dégg lu moom mooy njiit ba <coughs> am benn bis Zeydu doon waxtaan waxtaan waxtaan ci xam-xam ba eh, waxtaan bi neex bim pe Abdullah ibnu Abbas jël baaxla la bi mu waroon mu fëggal ko ko baax mooy berkelle mu fëggal ko ko mu jël laltaay bi tegal ko ko ci kaw Zeydu na ko waaw lan moo tax ngay def lii dégg mu ne ko hakada amarana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi ahlil ilmi lii la ñu yonent bi digaloon ne nañ ko defal borom xam-xam suñ gisee borom xam-xam nañ ko màggal dégg nga Zeydu itam daal di jël loxoom bi foon ko dégg nga Abdullah ibnu Abbas ne ko lu tax nga may defal lii mu ne ko hakada amarana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi an nafaala bi ahlil ilmi lii la ñuy bi bi ahlil bayti lii la ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digaloon ne buñ gisee waa këram yi nañ ko nañ leen ko defal loolu nañ foon seeni loxo dégg nga loolu itam da gis ne aadama itam ba mu wone xam loolu moo tax malaaka yi sujootal ko de waaye sujoot boobu noonu sujootu nuyoo la de sujootu màggal la dégg nga al ilmu xam-xam huwal imaamu mooy njiit de wal amalu taabiun lahu mu ne jëf nag moom moo topp ci moom nag xam-xam su amee ba noppi dégg nga na nga fexe ba nga jëfee xam-xam bi de wa lu ilmi ata bihil kitaab mu ne ngëneelu xam-xam téere yi dinañ ko dikke wa sunna ak sunna wala aqlu ak xel amal kitaab fallaahu tabaraka wa taala dakara fi iddati ayatin fadlul ilmi mu ne su fekkee ne ñëw nga ci téere bi mu ne yàlla tudd na ci eh, aaya yu bari dégg nga ngëneelu xam-xam de min ha bokk na ci innama yaxsha allahu min ibadil ulama yàlla daal ñu ko gën a fonk gën koo ragal daal mooy borom xam-xam yi ci jaama bi mooy borom xam-xam yi dégg nga bokk na ci itam moom min ha shahidallahu annahu laa ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti dégg nga yàlla tudd na ñeenti melo dégg nga ne daf ci yëkkati seeni daraja mu ne ahlul badri dégg nga mooy waa badara innamal mu'minuna alladina ida dukira allah wajilat qulubuhum dégg nga haadihi nazala min ahli badrin aaya boobu noonu ñi nga waxtu wuñ tuddee yàlla rek nga gis seen xol yi di yëngatu di jeqar bi ko mu ne aaya bi ci ahlu badrin la la la wàccoon wa qaala axiruhu mu ne wax na itam beneen innahu yarfau darajatihim yu'tihim darajatun aaliya ne moom kat dina yëkkati seen daraja te dina leen jox daraja yu kowe kowe ah, ba noppi yàlla tuddaan na itam yaa ngi dégg ginnaaw borom xam-xam yi tuddaan na dégg nga ah, mujahidiina yi dégg nga ne borom xam-xam it na leen yëkkati ci daraja yu kawe waaye mu teg ci itam ci mujaahidiina yi de fadlullahi maanaam nga ne leen yàlla dégg nga al mujaahidi alal mujaahidiina dégg nga ci ñi nga xamante ne eh, jihaad kat lañ di alal qaa'idina ci ñi toog ajran adiman darajaatin maanaa eh, pay gu mag a mag la ci daraja de dégg nga ñi nga xamante ne ñoom. dañoo jihaad yi ñoom ñooy ëpp yool ñooy ëpp pay ñooy ëpp daraja ci ñi nga xam ne dañoo toog de wara wa wa rafa tabaraka wa taala darajaatun yàlla dina yëkkati darajaay eh, saalihiina yi wa man yaati muminan qad amila saalihaat fa ulaika hum lahum darajaatun ula képp koo xamante ne dikkee nga ko moom yàlla nga nekk mumin ku gëm yàlla te nga jëf-jëf ju baax mu ne ñooñu daal ñoom itam borom daraja yu kawe lañ de fa walaayaka naka ñooñu le lahum darajaatun ala ñeel na leen ay daraja yu kawe de dégg nga war a fon darajaatin ahlul ilmi wa rafaa darajaatu ahlul ilmi yàlla yëkkati war na itam darajaay borom xam-xami fawqa jami hadil asnaaf ci mu ne mu féete ko ci mboolem melo yi ñu la tuddal nii dégg nga yarfau laahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajatin yàlla dina yëkkati yaa ngi dégg ñi nga xamante ne gëm nañ ci yéen dégg nga waaye ak ñi nga xamante ne jox nañ leen xam-xam dinañ leen dinañ yëkkati seen daraja de dégg nga fa jaala ulul ilmi fil martabati salisa yàlla jëlaat na borom xam-xame mu def leen ñi martaba ñetteelu martaba dégg nga ñetteelu martaba boobu mooy bi yàlla waxee ne shahidallahu annahu laa ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi dégg nga yàlla seede na ne amut kenn ku yàlla ku dul moom dégg nga mu teg ci malaaka yi mu teg ci borom xam-xam kon borom xam-xam yi ñoo jël troisième position ginnaaw bi yàlla seede ci jëmmam malaaka yi seede ko borom xam-xam yi ñoom ci topp de mu ne alquran indi na eh, juróom-ñaari anfaar dégg nga juróom-ñaar yooyu yëpp dégg ñu ngi tudd. Eh, ñu ngi tu ñu maanaa ne juróom-ñaar yëpp dégg nga ñu ngi amee xam ci yàlla bila waasitatin ci lu dul <coughs> intermédiaire alquran tudd na juróom-ñaari anfaar ñoo xamante ne ñoom ñëpp kulluhum zakarallahu ñoom ñëpp yàlla wax na ne annahu naka moom allamahu xamal na ko al ilma xam-xam min indi fa ca moom bila waasitatin sans intermédiaire kooku mooy kan mooy aadama moo ci njëkk allama aadama asmaa kullaha yàlla moo xamal aadama mboolem turi dégg nga fa naa bi daalika bi ko yàlla xamale loolu ci xam-xam boobu yaa ngi dégg mu ne ci la jotee alxilaafa dégg nga maanaam bi mu amee xam-xam moom aadama ci la amee xilaafa waaye ci la amee itam malaaka yi su jootal ko de dégg nga ah, mu ne wa qaala lahu wa taala yàlla waxaana ne innahu alamal xudar alamal xudar ala ilmul firasati dégg nga yàlla wax na ne moom moo xamal xudar xam-xamu firasa xam-xam mu firaasa nag xam-xam bu jéggi dayoo la mooy xam-xam bi nga xam ne moom la xudar amee woon yaa ngi dégg ah, moom la alquran di dëggal ne wa allamnaahu min ladunnaa ilman ñun ñoo xamal dégg nga ah, ah, xudar xam-xam boo xam ne direct bu jógee ci yàlla la de sans intermédiaire moom itam kon gis nga aadama yàlla xamal na ko xam-xam dégg nga sans intermédiaire mu nekk xalifa yàlla ba noppi ma malaakay su jootal ko dégg nga xudar itam yàlla xamal ko xam-xam boo xam ne intermédiaire bu jógee la ci moom yàlla sans intermédiaire dégg nga su boobaa fanaala bi daalika tilmidan misla Moussa wa Yusha dégg nga euh, ci loolu la xudar amee taalibe bu mel ni Moussa ak Yusha te ñoom ñaar ñëpp ay yonantu lañu woon wa allama yusufa taawil al ahlaami yàlla xamalaat ba tey yusufa firi gént mu nekk xam-xam boo xam ne direct bu jóge ci yàlla ñëw ci yusuf sans intermédiaire rabbi qad aataytani min al mulki wa allamtani min taawil al ahadis yow yàlla xamal nga ma wala indil nga ma ci nguur waaye xamal nga ma itam ci taawilul ahadis mooy firi gént yi fanaa ci biir firi gént xam-xam boobu yàlla xamal ko ci la jotee zalixa soxnaam bi di zaliqa wal mamlakatu ak nguur gi wa ak nguur kon wa allama daawuda yàlla xamal na daawuda sunaatu labuusi maanaam eh, defar ay mbubu koŋ daawuda daf doon tëgg di tëgg ay mbubu koŋ yoo xam ne moom lañ doon géere dégg nga wa allam naaw sunaata labuusi yàlla xamal ko ni ñuy defaree mbubu koŋ yi de fa wajada riasa wal mulka bi mu amee loolu ci la ko ci la yàlla mayee mu nekk njiit ak nguur mu nekk buur ba noppi mu nekk itam njiit de ci suleyman ci la eh, daawuda nekke njiit ci la nekkee buuru israil itam waa mu tegaat ci ne wa allama suleyman mantiqa tayri yàlla xamal suleyman waxu picci yi yaa ngi dégg loolu la alquran di wax ne wa ullim naa mantiqa tayri xamal nañu waxu picc yi dégg mu ne wal muallimullah dégg nga mu ne kii xam le mooy yàlla subhaanahu wa taala ginnaaw ba amee loolu fa wajadal mamlaka mu jot nguur gi de moom itam moom Suleymaan wa wajada mu jot ci xam-xam boobu noonu Balqiis ak Balqiis wala arsh ak arsham gi dégg nga wa allama Isa alkitaaba yàlla xamal Isa euh, téere bi de wal hikmata ak hikma ak hikmatu wa tawraat ak wal injil ak injil mooy bible mu ci biir loolu itam wa yaalamul kitaaba wal hikmata wa wal injil mu loolu moo tax isa itam fanaa bi dalik dégg nga ci la amee loolu ci xam bim xam tawraat xam ko injil xam ko xam-xamu hikmatu ci la ko yàlla yëkkatee jëme ko ci asamaani de mu dem bay jonjuwante ak malaaka yi de moom isa alayhi wa allama muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla xamal itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al shariatu dégg nga loolu la alquran di wax ne wa allamaka ma lam takun taalam xamoon la xamal nañ la loo xam ne daaw ko xam yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam dégg nga ci loolu nag la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam jotee shafaatu de mooy ci la mën a ram ci la mënee ràmm de qaala ali karamallah wajahu imam ali karamallah wajahu wax na ne <coughs> al ilmu afdalu min al bi sabaati ashyain mu ne xam-xam moo gënee alal ci juróom-ñaari mbir xam-xam moo gën alal almaalu miraasul firaanati eh, eh, wal ilmu miraasul anbiyaayi mu ne xam-xam mu ne alal kon imaam ali mu alal mooy miraas bi nga xamante ne moom la ñuy séddalee firaana firaanati firaanata maanaam mooy plurielu firaawna yaa ngi dégg firaawna jamoo bi mooy firaanata dégg nga mooy pharaon yi pharaon yi ñoom seen miraas mooy alal mu ne wal ilmu waaye xam-xam moom miraasul anbiya moom la ñuy miraase borom moom la ñuy miraase yonent yi de yonent yi ñu ngi leen di miraase ci alal ci xam-xam kon yonent yi ñoom xam-xam lañ bàyyi moom lañ leen di miraase waaye firawna yi ñoom alal la ñuy bàyyi de dégg nga almaalu imaam ali mu ne eh, alal yanqusu bi nafaqati dafay wàññeeku ci waxtu woo génnee dara di joxe dégg nga mu ne wala ilmu la yanqusu bi nafaqati mu ne waaye xam-xam moom waxtu woo koy jox rek du wàññeeku de moom dafay dafay yokku rek dégg nga mu ne almaalu alal yajiduhu alkaafiru wa yajiduhu almuminu mu ne eh, alal xéeféer dina ko am waaye ku gëm yàlla yitam dina ko am mu ne wala ilmu xam-xam nag laa yajidu illa muminun dégg nga kenn du ko jot lu dul ku gëm yàlla de almaalu alal yaxtaaju ila xaafisin wa xaarisin mu ne alal dafay soxlawo ku koy wattu di ko arrosé maanaam ko yokku dégg nga mu ne wal ilmu xam-xam moom yaxfasu dafay wattu moom saahibu boromam am xam yow yaa koy wattu déedéet xam moom moo lay wattu waaye alal moom yow yaa koy wattu de dégg nga laa yaxtaaju li xaafisin du soxlawoo mukk yaa ngi dégg borom xam du soxlawoo ku koy wattu de <coughs> almaalu mu ne alal isa maata su dee al insaanu doomu aadama bi yabqa dina des maaluhu alalam mu ne wa ilmuhu waaye xam-xamam yadxulu maahu dafay ànd ak moom de fii xabri ci biir bàmmelam de laayu faariqu du tàqale ko ak moom de kon alal lii la gënee xam-xam lii la gënee alal de almaalu imaam ali mu ne alal yasqulul insaana ala siraat buy si nit ki di jéggi siraat alal boo amoon ci kaw suuf daf lay diisal boo jéggi siraat waaw mu ne ilmu waaye xam-xam eh. Eh, mu waaye Eh, xam-xam moom yàq wii daf lay dëgëral alal mashi ala siraat su fekkee ne yaa ngi eh, eh, dox ci siraat xam-xam moom daf lay dëgëral ba nga man ci dox dégg nga te doo tàbbi ci safara de al ilmu xam-xam yaxtaaju dina yittewoo annaasu nit ñi kullan ilayhi fii diinihim maanaam borom xam-xam dégg nga nit ñëpp dinañ yittewoo yaa ngi dégg ci ci ci ci seen diine maanaam dinañ yittewoo seen diine ci xam-xam <laughs> mu ne walaa yaxtaajuna illaa saahibil maali mu ne waaye eh, nit ñi duñ yittewoo lu dut eh, maanaa duñ yittewoo lu dut borom xam-xam <coughs> waaye du lu borom alal kon borom xam-xam moom gaa yëpp koy soxla woo <coughs> waaye borom alal moom ñi soxla alal rek ak àdduna ñoom ñoo ko yittewoo de <coughs> mu ne fale ilmu xam-xam afdalu moo gën minal maali ci alal de wa ida kaana aadama alayhi salaatu wasalaam eh, ullima asmaal kaayinaat su fekkee ne aadama daal xamal nañ ko turu turu mboolem bindeef fii fa sharafa bi dalik mu tedd ci loolu noonu dégg nga li ko teral mooy xam-xam bi mu xam dégg nga euh, euh, euh, xam-xam bi mu xam moom moo ko teddloo moom aadama dégg nga ba hatta wajada sujudal malaayka ba yàlla defal ko malaaka yi di ko sujootal ndax xam-xam wa tahiyatuhum lahu te malaak sujoot boobu noonu naa sujoot la boo xamante ne sujootu nuyoo la Euh, mooy malaaka yi bu ñëwee dañuy yësal seen doq yi maanaam dañuy sëgg seen doq yi ci aadama alayhi salaam mu ne fa naxnu bàyyi teg ci nañu ne ñun lim naa xamal nañu azaatu xamal nañu jëmm ji mooy jëmm yàlla wa sifaatu ak meloom bi wal asmaaw ak tur yi yàlla xamal nañu jëmmam bi xamal nañu meloom bi xamal nañu turam yi mu ne laysa asmaawul kaayinaati mu ne yàlla du du du du turu mbindeefi de déedéet bal asmaullah mu ne eh, naka maa tur yàlla yi la ñu yàlla xamal wa sifaat yi ak melom bi moom yàlla subhaanahu wa taala yàlla xamal nañu ko wa zaatuhu ak jëmmam bi al aliyati bi aji kowe yàlla xamal nañu jëmmam ji aji kowe dégg nga iza arafna haada bàyyi mu ne su fekkee ne ñun ñoo xam loolu nag dégg nga kayfa laa najidu assalaamul malaayka naka la ñuy naka la ñuy ñàkk amee jàmm ak yi ñun malaaka dañuy may jàmm de bal najidu fawqa dalika najidu mu ne dinañ am sax lu ëpp loolu ndax dinañ am salaamu jàmm ak yàlla yàlla dinañu may jàmm ginnaaw bi ñu xamee jëmmam bi ñu xam meloom bi ñu xam turam bi lu tax salaamun qawlan min rabbin rahimin jàmm ak wax boo xam ne mu ngi tukkee ci borom bi de mu ne wa ida kaanal xudar su fekkee ne xudar wajada bi ilmil firasati mu ngi amee ci xam-xamu firasatu dégg nga soxbatu Moussa wa Yuusha wa huma nabiyaani mu am mu am ci ànd ak Yuusha ak Moussa moom xudar ci xam-xamu firasa bi ko yàlla xamal ci la amee taalibe bu mel ni Moussa ci la amee taalibe bu mel ni Yuusha dégg nga bàyyi mu ne te ñoom ñaar ñëpp ay yonantu lañ mu ne fa nahnu wajadna ilmul xaqiqati ñun nag amuñu ilmul firasa waaye ilmul xaqiqa lañ am mu ne kay falaa najidu sohbatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ana naka la ñuy eh, eh, def ba duñ am ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam toll ñu ngi ànd bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga <coughs> mu ne najiduha dañ koy am <coughs> ulaayka maa alladina anama allahu alayhim min annabiyina eh, wa siddiqina wa shuhada wa salihina wa husna ulaayka rafiqan Ah, min fadailil ilmi bokk na ci ngeneelu xam-xam ne eh, ne képp koo xamante ne yaa ngi sàkku ji xam-xam boo jógee koo sa kër yaa ngi dégg nga jëm ci barab bi nga xamante ne foofu ngay sàkkoo xam-xam dangay gis malaaka yi dañuy jël seen mbagg yi yaa ngi dégg di la ko dóoral ci suuf di la màggal yaa ngi dégg di la yëkkati di la teral dégg nga yaa ngi dem tee nga ci ki nga xamante ne moo lay jàngal yaa ngi dem ci sa sa maître bi lay jàngal dégg nga mu ne su boobaa yanzilu alayhi rahma yërmande yàlla day continuer rek di wàcc ci yow de kon nañ bàyyi xel ci sàkku xam-xam sàkku xam-xam dara gënu koo tedd de loolu moo tax yàlla subhanahu wa taala mu ne mu ne malaaka yi in kuntum saadiqina su fekkee ne dëggu ngeen nag léegi yéen wa wax leen turi xaalu ñu ne subhanaka tudd nañ si sell gi de laa ilma lana del xam-xam ñeel ñu illaa ma allamtana lu dul loo ñu xamal de innaka naka yow anta la alimul hakim yow yaa aji xam aji xereñ de qaala yàlla wax ne yaa adama yow adama an bihum xamal leen bi asmaayim ci seen tur yi fa lama an bam bi asmaayihim bi mu leen xamalee seen tur yi qaala taala dégg nga yàlla eh, maanaa mu wax moom yàlla alam aqul lakum xanaa waxuma leen ne inni alamu man maa ki gën a xam xaybu samawaati li fàddu ci asamaani wala ard ak suuf de wa alamu te xam naa maa tubduuna la nga xamante ne moom ngeen di eh, eh, feeñal wa maa kuntum taktumuna ak la nga xamante ne moom ngeen di nëbb de lépp xam naa ko man yàlla subhanahu wa taala <coughs> Eh, su ko defee mu ne eh, wa iz qulnaa lil malaa'ikati isjudu li aadam yàlla wax na ne bi nga xamante ne wax naa malaaka yi nañ sujootal aadama mu ne sujoot boobu noonu sujootu tax la de maanaam sujootu nuyoo la mooy lan mooy nga yor sa doq bi sëgg ci kanamu eh, ki nga xamante ne moom mooy borom xam-xam bi dégg nga comme ni nga xamante ne moom nga gis japonais yi wala kii di nuyoo rek di nuyoo seen nuyoo sëgg googu loolu mooy sujoot bi de. mu ne laysa sujudul ibada mu ne du sujootu sujootu jaamu yàlla bi de comme booy julli ni ngay sujootee du loolu de dégg nga haada la yustahaqu illa allah tabaraka wa taala mu ne boobu kenn yowut ko ku dul yàlla subhanahu wa taala de aw ju'ila adama qiblatan lahum walla mu def aadama muy qibla ñeel ñu kama ju'ilat kaabatu qiblatan lana comme ni nga xamee ne noonu la jël kaaba gi mu def ko eh, eh, eh, mu def ko muy suñ xibla yàlla dafa jël aadama kon def ko muy xibla malaaka yi comme ni nga xamee ne moom la jël dégg nga kaaba gi def ko muy suñu xibla dégg nga ah, mu ne nas judu ilayha ñun dañuy sujoot jëm ci kaaba gi wala nas judu laha waaye sujootaluñ kaaba gi de dégg nga xaqiqatan dëgg de ñun sujootaluñ kaaba gi waaye dañuy sujoot nag jublu kaaba gi mu ne wa ala kulli haalin as sujudu li gayrillahi tabaraka wa taala mansuuxun mu ne sujootal leneen lu duhut yàlla moom dañ koo nasaxal de loolu moom dañ koo far dañ koo dindi yàlla rek moo yeew sujootal de dégg nga mu ne fa sajjatu mu sujoot illaa iblisa ba mu des iblis iblis nag huwa abul jinn moom mooy baayu jinne yi de kaana baynal malaayka mu ngi nekkoon ci diggante malaayka yi de <coughs> abaa mu daal di bañ moom iblis dégg nga Eh, wastakbara mu rëy rëylu dégg nga lan la waxoon ana xayrun minhu man maa ko gën moo tax foo fekk nit ku wax ne maa gën maa raw kii maa nangam ak nangam ci maqaama iblis rek la tollu de yaa ngi dégg anaaniyatu nañ koy bàyyee yàlla subhaanahu wa taala rek ko yeyoo waxtu woo àggee ci xadra pay bi bi fu boobaa nag war ngaa man war mën ngaa wax ne ana ana waaye waxtu woo foofu nag foo fekk nit kuy bëri lu muy wax ne man man maa gën kii man maa raw kii man maa sut kii man maa nangam ak nangam xamal ne rek ci buntu iblis ci la taxaw dégg nga mu ne wa kaana minal kaafirina te moom iblis kat yaa ngi dégg ci xéeféri la bokkoon de moom iblis kaana yu sama bi azazil ñu ngi ko tuddee azazil azazil la tuddoon <coughs> kaana abdan muqriban abdullahi tabaraka wa taala mu ne jaam woon boo xam ne eh, ku jege woon yàlla la de abadallahu tabaraka wa taala ku daan jaamu yàlla itam dégg nga fi kulli sibrin ci bépp sibre rek ala wajil ardi maanaam bépp sibre ci kaw suuf ma sibre mooy boo taalalee sa baaraam yi benga baaraam bi ci gudd bi ak baaraamu eh, baaraamu bu bu mag bi loolu mooy sibre boo ko taalalee ci kaw suuf sibre boo laal rek dangay gis ne iblis su jootal na fa yàlla ci mboolem suuf si ba mu daj nag kon gis ngeen iblis lam su jootal yàlla kenn su jootalul ko de dégg nga mboolem kaw suuf rek iblis su jootal na fa yàlla de waaye lan moo ko yóbbee bañ dàq ko ne ko faxruj fay naka rajimun génnal yow ku ñu dàq nga rajimun mooy koo xam ne ku ñu bombardé nga <coughs> ah, mu ne <coughs> wakaana nekkoon na moom <coughs> déedéet su jootal na yàlla ala wajil ardi ci kaw suuf alfa sanatin junni at wakaana xaasinul janna arbaina alfa sanatin nekkoon na ko xam ne moo yoroon caabi aljana yaa ngi dégg E ñeent fukki junne at moom moo yor caabi aljana moom iblis dégg nga wa jaahada sittina alfa sanatin waaye jihaad na itam yaa ngi dégg e juróom benn junne at de dégg nga juróom benn fukki junne at moom iblis e, moom iblis haada qabla adama mu ne te booba yàlla bindagut adama de alayhi salaam su ko defee ñu tënk fii nii allahumma salli ala sayyidina muhammadin haq qadrihi wa miqdaaril azim kuñ fa nome war ngay sant yàlla ñun lañ sigil gëstaloon sidi baram